ñoo ngi doon tafsir bu saar bi di suratu nuur borom bi subhanahu wa taala di wax ni wa yunazzilu min alsamai min jibalin fiha min barad fa yusibu bihi man yashaau wa yasrifuhu an man yashaa yakaadu sana barqihi yadhabu bil absar laaye jooju foog naa ne lu ñu gaaw gaaw fàtte fàtteegun ko sunu borom ci laaye jooju borom bi subhanahu wa taala mi ngi leeral ni yàlla day mooy wàcce taw bi ci asamaan bi bu ko wàccee léeg-léeg day ànd ak xéewal moom taw léeg-léeg taw ànd ak safaan borom bi subhanahu wa taala mu ni fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha borom bi mooy indi taw bi ma wax la aaya jooju démb waxoon naa la am na ñaari xeeti bii firi bu njëkk mooy fa yusibu bihi man yasha yàlla dana tawal ña ko soob ñooñu am ndox wa yasrifuhu an man yasha yàlla dina xañ taw bi ña ko soob su ko defee ñooña duñ taw ma waxoon la ne ñaareelu firi bi mooy fa yusibu bihi man yasha mooy yàlla day def am mbugal wala alkande wala lor lor ca taw ba ñenn ña loru ca ñeneen ña ca def yàlla musal leen ca lor laay bi day mbokk yi li tax ma baamtuwaat ko mooy waxtu wi ñu toogee démb tembe di ko tafsir laaye ji li tax ma jaaral mooy ngir ñun ñëpp ñu dellu ci waat suñuy xel gën a yëg ni yàlla mooy sunu borom moom lañ war a jaamu di ko ñaan tey nag di yëg ni lu nu andil ci xéwal ci mooma luy safaanit moom mbokk yi laaye ji démb ci waxtu wañu toog di ko tafsiree tembe mi ngi xiin ba ñuul ba ci sama biir dars maa ngi joxe misaal ci xiin bi waxtu wa ñuy wax tembe ni am na ñoo xam ne yàlla day wàcce taw bu nekk safaan ci ñoom fekk na jëf jooju tembe ma ngay am ca waxtu woowu bi ma paree dars ci la mbokk ñëw ci sama kër xamal ma ni ma ci Dakar day am na ca barab yoo xam ne waxtu woowee temba ma ngay taw ba am na ay kër yu ñu fa xam yu daal loolu ci guddi gi la ma ko wax bi ñu xëyee ñu déglu média yi ay firnde di wane lool ba ci biir média yi ci lañ dégg ñaari nit ñoo xam ni faatu nañ ci xam naa loolu Dakar waaye ci taw démb bi la ci région yi am na pour wax ni ñaari nit faatu nañ ci tawab démb ci télévision yi image yi ciy wane nga gis ay nit yoo xam ni ña ngay xuus ci biir ndox ma ci seen biiri kër nga gis ay nit yoo xam ni ñoom seeni wata daa fay ca digg tali ba ndax ndox ma dem na ba dugg ca biir nga gis aw nit woo xam ni booba ndox mi fekk na leen ba seen biir yi ne génne leen ba ñu ngay wax wax yi sax dañuy xëy baare tali bi ndax li ñuy dugg mënatuñ koo muñ mbokk yi ñooñu ay jaam lañ ci jaamu yàlla yi ñu nit ay jaam lañ ci jaamu yàlla yi ñooñu lan lañ def suñu borom ba suñu borom jagleelee leen natt booba yàlla ñun ndax danoo defal sunu borom lu tax natt booba dalul ci sunu kaw déedéet tontu boobu moom déedéet lay doon ndax yéen ak man xam nañ sunu bopp bu baax kon bokk teenoo gën a santaal yàlla subhanahu wa taala laay ji mañ koy tafsir teem rek lay wane ni doomu aadama xamul kumpa nekkete loola ñuy wax nan koy waxee ma ngay am cat barab mbokk yi bu sooboon suñu borom de ñun ak suñuy wayjur la yàlla lay natt ndox mi fees dellu ci suñuy kër am na koo xam ne ma nga cay wax mu ni télévision yaag frigo yaag matelas yaag lépp matériel yore yëpp yàqu na ci ndox mi wallahi booy wër ba ca biir da nga fekk ay jaamu yàlla yu baax yu la gën a ragal yàlla ci seen biir kon yàlla ci coobaram lay defee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq fi dunya wal axira kon ñu ngi taxawal ci laaye jooju di fanweereel ak juróom tey baada aoudu billahi samil alim min ashaytan rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsi donc dars bi dana gàtt lool borom bi subhanahu wa taala di wax ni laqad anzalna ayatin mubayinat wa mathalan min al wallahu yahdi man yashaau ila siratin mustaqim sunu borom la laqad anzalna nun yàlla wàcce nan ayatin ay aaya ay verset yu firnti yu faram-fàccewu yu leer yu jub yu baax yu mën a gindee ku ko topp gindee mu bayinaatin leer lool wallahu tabaram yàlla nag yahdi mooy gindi man yashaau ku ko soob ila siraatin mustaqim ba jëmale ko ci yoon wa nga xam ni moo di coow ba yegg ci ngërëm sunu borom asiraatul mustaqim mooy yenn yoon wi yàlla jaarlu mooy yoon wa yonent bi rëddoon ak tànkab boppam sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi yàlla day dafa wàcce ayatin mubayinat aaya yu leer loolu war nay tax ab julit fu mu toll na jàng alquran di ko xamlu tey bu xamut la muy tekki nay jege nga xam la mu tekki ñu di ko ko tekki wallahi mbokk yi alquran lépp a ngi ci fii naba'u man qablana wa xukmu ma baynana wa xabaru man ba'dana kitaabun faslun jama'a allahu fii axbaara al awwalina wal axirin téere boo xam ne la fi newoon te fekkee woo ko sunu borom nitili na ko ci téere boo xam ne nun li ñuy dund situation yi ñuy dund li ko réglé mi ngi ci biir téere la boo xam ne li war a ñëw ba àddina yi sunu borom mi ngi ko dëxal ci biir kon mbokk yi téere bi téere bu firiñ la téere bu leer téere bu gindee gis nga am na ci jaam yàlla yi ñoo xam ne dañoo tënku ci alquran tënku koo xam ni allahu akbar fa la ñu ne woon te daara ja dañuy nett li ay góor ay nit te kii ñuy wax man xam naa ko ndax donte ba ma koy xam gone laa waaye xam naa ko bu baax dund naa moom ay at dañuy wax ni dafa jekk woon alquran jekk goo xam ni masala moo ko andil ci mbiram àddina balaa mu caa wax dana ci jàngum aaya bu méngo allahu akbar ki may nettali nii ñoo bokk benn dëkk bu nu dëkk papa la ci sama yaay mag ya ko fekkee nee nañ masala moo ko mës a andil ci mbiri àddina yi balaa mu laa tontu day jàngab aaya te aaya ba day mel ni régler problème booboo ko taxoon a jóg loolu mooy jekk ko alquran la kon mbokk yi téere la boo xam ni bayinaat dafa leer wallahu su borom yàlla nag yahdi mooy gindi man yashaw ku soob ila siraatin mustaqim ci yoon wi gën a jub yàlla yàlla boolem ca ñooñee nga xam ni soob nañ suñu borom yàlla gindi ñu boolem ci jaaram yu baax suñu borom ci laaya gi ci topp yàlla dafay melal naafiq yi ak melokaanu wu safaanu wi nu yore te xam ngeen ni mbokk yi musiba ji gën a rëy ci lislaam mooy naafiq ab yéefar moom wax na la mooy kan nee na la man gëm ma li nga gëm toppatoo ma li nga toppatoo faalewu ma muhammad wala ayasu billah moom loolu la wax ma nga ca lam nekk ab julit moom mucc nga cay mbiram naafiq nag mooy koo xam ni day yor melokaan wi nga yor fekk posan la bu bëgg a dugg ci sa biir gémmiñ ci allahu akbar moo tax waxtaan noonu lahum alfu wajhin min min baadi ma daa wajhuhum naafiq yi am nañ junniy kanam ginnaaw bu seen kanam original réere ab naafiq lahum alfu wajhin baada ma daa wajhuhum am nañ junniy kanam ginnaaw bu kanam nga yàlla sàkkoon réere foo foog ni mënuñ la faa dikkee rek mën nañ laa dikkee kanam boobu ab naafiq ku bon la ku yées la bariwaanal yàqu ci lislaam moo ko yàq que sab Aïcha tuumaam bi soreewu leen te gisoo ngeen ko ci dundu Aïcha mbokk yi ab julit bu ne ci ñun nag war nay jiit ndax moom nekkut naafiq wala déet benn waay bu tàggan bu gaay ba mel ni man de dana ah alhamdulilah man de mucc naa ci naafiq yi déglul ma wax la Omar ibn Khattab koo xam ne yeneen yàlla bi nee ne yàlla dafa def dëgg muy daw ci diggante làmmiñu Omar ibn Khattab koo xam ne ay martabaam yegg na ci yonent bi romb ca ajana ja saa xam kaw muy biri biri ko or biri ko xaalis mu laaj Jibril ku moom bii mu ni ko bii de Omar ibn Khattab ko moom koo xam ne martabaam yegg na ci yonent yàlla bi nee na ko mbedd moo jaar fu la seytaane téenee day dëpp koo xam ne daay yegg ci ba ñu gëm yàlla ñi sax dañ bu leen buñ ko gisee dañuy tiit ndax may ak xëyma bi ko yàlla mayoo koo xam ne yonent yàlla bi nee na ko yow yaay nopp ci man wala nga nekk bët yonent bi nee na Abubakar ak Omar yéen ñaar yéenay samay bët wala yéenay samay nopp mbokk yi ku am martaba ju kawee nii ba noppi xam ngeen ne yonent yàlla bi yàlla xamaloon na ko naafiq yi nekk ci Madina waaye saxaaba yi xamuñu ko woon am na benn saxaaba bu ñuy wax saaxibu sirri rasulillah muy Xusayfat ibnul Yamaan Xusayfa moom la yonent bi woowoon jéey ko turu naafiq yi Xusayfa xamoon na diw naafiq la diw naafiq la diw naafiq la Babacar li muy baax yonent bi waxu ko ko Omar li muy baax yonent bi waxu ko ko Ousmane li muy baax yonent bi waxu ko ko Omar ibn al-Xattaab ak ci mu yeggoon ci ragal yàlla ma waxoon la ci dundam ni boo musaan ni fixé Omar xool ko da ngay seen ñaari traite yu ne fii wala maa siyar ñu ni jooy yu bari jooyal yàlla lu bari moo ko defoon la doon jooy ba fii def ay traite fuy wane ni fii la rongoñ di daan jaar nga xam ne bu sol moo du set bu sol moo saabu du set bu ko foog ndax loolu dafa mel lu xottee ko ci yaram bi Omar dana bàyyi ba xosey ba tëdd mu ñëw di ko fëgg xosey ba ni kookan la mu ne ko man la Omar ibn Xattaab mbaa jàmm mu ne ko déedéet du jàmm ne lu xew mu ne ko dama lay laaj ngir yàlla wax ma ndax yonent bi limaale wu ma ci naafiq yi déet allahu akbar mbokk yi xool Omar ibn Xattaab ak martaba yii ma la waxal yépp ak yi ma waxut yépp te xam ko ak yi ma réeri te mu ëpp yi ma xam da doon jiit ci boppam ndax naafiq la wala déet mbokk yi est-ce que ñun ñu ngi jiit loolu kenn ci magi salaf dana nag wallahi ma araftu nafsi fi kitabillah illa wajadtu nafsi min arraasixiina fi nnifaaq magum salaf moo xam ne dafa jaamu yàlla ba bejjaaw ca góorgóorlu ci ragal yàlla ba yow boo ko gisoon ñee ko nee na moom saa bu jàngee alquran day mere boppam ndax day jàpp ni moom ñi gën a xóot ci naafiq ca la bopp waxuma la yow nga foog ni sax ba ca ñi gën a xóotam nii est ce que yow jàpp nga ne war nga caa mën a bopp mbokk yi nifaaq naafiq naafiq musiba la ab dil war nay daw ay jéego lu mu man ba daal yamu sol dagg ngir na mu sus naafiq yàlla mu ne inna al munafiqina fi darki al asfali min an naar yàlla su dee leen saaru lëm décliné leen nag ba nit ki ku ku ñëw ci saaba day mel ni yow dañoo def benn appareil teg ko ci kaw naafiq ngay xool li ne ci yaram bi yëpp ida jaaka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah ñoom bu ñëwee dañ naan la yow de ñoo ngi see ne yaay yonent yàlla bi yàlla mu ne wallahu yaalamu innaka la rasulu yàlla xam na ni yaay yonent bi kon ñoom jërul ñu koy wax waaye wallahu yaalamu innahum la kadibun ñoom dañuy kàcc dañuy kàcc ci la ñoom li ñu wax dëgg la wala dëgg ah kay dëgg la wax gi ñu wax ni yow yaay yonent yàlla bi moo tax alquran alquran dafa fa sax ida jaaka almunafiquuna qaalu nashhadu innaka la rasulullah su ci wallahu yaalamu inna innahum la kadibun tege woon rek wax ja dana xaw a lëndëm lool suñ dikkee dañ naan la yow yaay yonent yàlla bi yàlla bi dañuy kàcc kon kay daa mel ni kon yonent bi nekkul yonent yàlla bi waaye loolu la ñuy tuddee jumlatul i'tiraad ñi jàng luga ñi jàng nax dafa am lu ñuy tuddee jumlatul i'tiraad eh kaay ma yónni la sa kër bàyyi jiw solo sa dàll yi ba pare xam nga solo sa dàll yi ba pare mënoon na faa ñàkk kon daal lu ma doon wax ma am lu ma bàyyi wax la dugal ci samay soxla naafati buñ dikkee dañ naan yow yaay yonent yàlla bi yàlla mu ni wallahu yaalamu innaka la rasul yàlla xam na ni yow ab yonenteem nga waaye nag lin wax wallahu yaalamu innakum la kaadibu dañuy kàcc parce que gëmuñ lin wax ittaxadu aymanahum junna gis nga ci guerre li muy jëlee benn genre pakk genre plate la doon plate weñ buñ lay dóor si jaasi nga baaree ko ko jaasi dal ci yow ñoom jiñ moom lañ def seen pakk boo waxee ñoom benn baat ñaari baat dañ lay giñal ba wër ginnaaw asamaan ittaxadu aymanahum junna fa saddu an sabilillah loolu mooy nekk moyen bu ñuy jëfandikoo pour di yàq ci yoonu yàlla ñu ngi ci biir jullit ñi mel melokaan wi mel def lañ def waaye fekk ay musiba lañ ci lislaam daalika li waral ñu bonee nii bi annahum amanu summa kafaru dañoo wax ni gëm nañ wala ñu gëm ba noppi wedd ci seen biir xol fa taba allahu ala qulubihim yàlla kaste ci seen xol li gën a nekk ci xol te gën a mën a torop bi ñëpp moom wa ila raaytum boo leen gisee seen gisee boo leen gisee ak nan mel boo leen gisee ak lanuy wane boo leen gisee ak seen wax yenn wax yu wane ne ñoom kat jege nañ yàlla subhanahu wa taala boo leen gisee ak melokaan wu dëppoog na yeneen bi mel sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndeysaan da nga leen di naw jàpp yi ñii ñooy ay jaami yàlla suñu borom mu ni wa in yaqulu tasma li qawlihi suñu waxee nag allahu akbar da nga dem kii moom at bii yëpp moo fi gën a ragal yàlla suñu borom mu ni yaxsabuuna kulla sayxatin alayhi seen xol yi dafa bënëx dafa nëbale ba ñàkk gi ñàkk wóolu seen bopp gëm ni ciy caaxaan la nekk looy wax ci safaan rek fekk da def nañ lu ni mel ñu ngi jàpp ni ñoom ngay waxal sunu borom ne huwa humul aduw kooku mooy noonu bi faxdarhum moytu ko qaatalahum allahu an la yufakun xam ngeen ni Makka amul woon naafiq Madina la amee makka subhanallah muminuna xullat ay ñu gëm yàlla ñu set wicc biñ dikkee madina mbir mi yaatu nag yàgg commencé bari lu ne am ci biir am na benn waay buñ doon wax abdullah ibn ubay ibn salul day sax nga xam ni naafiq original la woon lim yàq ci lislaam lim yàq ci kër yonent bi wallahi yonent bi taxaw na ci kaw minbar mi tee ngeen a wax ci kii mi ngi dox bay dox sama digganteeg sama waa kër mooy liñ tuumaale Aïcha waaye yàlla mooy ko kéemaane ndax mu yuxriju alxaya min almayit wa yuxriju almayita min alxay yàllaay fekk lu dee mu génn ca lu dund mu fekk lu dund mu génn ca lu dee wa yuxyi al arda baada mawtiha mooy dundal suuf li wala fii naan ndekete guy dana jur dég wala ndekete guy dég dana jur guy xam nga garabu dég guy saxi guy ma mus leen koo gis garabu guy guy saxi dég it mës ta am gonay àll yi xam naa abdullah ibni ubay ibni salul moo gënoon a lakkal yonent bi ci naafiq yi yàlla def doomam bokk ci min awliya illahi saalihin doom ji mooy abdullahi ibni abdillahi ibni ula ubay ibni salul keroog bañ demee ci Muraysi bay tourné ñaari saxaaba jàppante ci teen bi bay dóorante ay dàll benn waaye abdullah ibni ubay ibni salul daal di ñëw am occasion gis ni saxaaba yi kenn gisu ko mu ne waaw waaw da ngeen a bàyyi yonent bi mu jóge Madina ñëw ak i sagaram ngeen fat ko lii la arab yi naan sàmmin kalbaka yakuluka duufalal sa xaj bi su paree yow lay njëkk a lekk yéen yonent bi dañ leen toroxal ba ngeen bëgg a dee benn saxaaba dégg ko dem boole koog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ni ca la yema mu dema ci tuuti mu ne la in rajana ila al madina la yuxrijanna al aazzu minha al adal ci surtout munaafiqun buñ delloo madina ñun ñu tedd ñi danañ génn ñu torox ñi ñoom ñu tedd ñi ñooy naafiq yi ñu torox ñu mooy yonent beeg waa kër allahu akbar doomam abdullah ibn ubay ibn abdullah ibn abdullah ibn ubay ibn salul bu ñu ko déggee dafa jël jaaseem taxaw ci buntu madina mu ni wallahi sama bàyyi tey lalam du ca tëdd lu dul daa seede ni mooy ku torox muhammad ay ku tedd wala ma rey ko gis nga saxaaba yi bu ñu xësee jéngu xam ngeen li ñu tuddee jéngu bu ñu xësee jéngu rek jeex na kenn mënta wax lu mu dégg xam nga kan moo mën a wax lu mu dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bañ faatee Hamza ca Uhud ndeysaan Safiya génn xam nga Safiya ak Hamza ñoo bokk benn baay Safiya di xaatar xaatar yi dem góor ñi ni ko dëppal dëppal mu lànk di dem faalewut kenn ndax booba xol bi jeex na yonent bi ni doom ji Abdullah ibn Zubayr dabal sa yaay nee ko yonent bi ne na nga dëpp mu dab ko ni ko yonent bi ne na nga dëpp mu doog a tourné allahu akbar ñoom fi ñu tegoon yonent bi dafa kawe abdullah ibn ubay ibn abdullah ibn ubay ibn salul mu ni tey bàyyi ji balaa tëdd ci lal dana seede loolu wala ma rey ko bàyyi ji dikk mu bërbëree moom jàppante moom ba nar koo caw jaar yonent bi joxe ndigal ni leen dem leen nee ko na ko bàyyi bi mu ni wallahi dinaa ñëpp wax yonent bi dinaa bàyyi waaye nag li ma ko jub wax ko na ko wax mooy nag ñun ñoo ñu torox ni yonent bi waxee ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee loola ci la ko doom ji doog a bàyyi ñu dugg ci madina li ma bëgg a wax foofu daal mooy mbokk yi naafiq ci boppam waxtaan ci waaru rëy rëy lay jël bis bu ñu yeggee ci suratul munafiquun nag bind ba dana jeex insha allah laaye ji nag sunu borom ci ñoom lay wax sunu borom li wa yaquluuna naafiq yi dañuy wax naan amanna gëm nañ billahi ci yàlla amanna billah gëm nañ yàlla wa bir rasuli gëm nañ yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom de loolu la ñuy wax mooy gëm nañ yàlla waaye gëm nañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wa abaana tey topp nañ loolu la ñuy wane loolu la ñuy wax summa ginnaaw ja lool yatawalla fariqun minhum am kuréel ca ñoom dañuy wane gannaaw lànk min baadi dalika ginnaaw bañ waree joxee seen kàddu ni ñoom déggal nañ yàlla déggal ab yonente li muy digal la ñuy def li muy tere la ñuy bàyyi loolu lañ wax ba nit ñi dégg ko mooy wañ daaray taw way yaqulu tasmaa li qawli humul aduwu mooy summa yatawalla fariqum minhum min baadi dalik ab kuréel ci ñoom wane gannaaw lànk di def lu wuuteeg lan wax ci kanamu yonent bi wa ma ulaika bil muminin ñooñu duñu gëm yàlla am na benn waay bu ñuy wax aljulaas ibne amr nettali woon naa leen ko fi ay jamono benn bi ci yonent bi daa wax saxaaba yi nañ leen saraxe ndeysaan mu ne waaw waaw nañ saraxe kay bi mu dee ba kër mu ne yonent bi dafa defee ni ñu ñooy ay mbaamam ba fu mu wëlbati ko naan joxe leen joxe leen wax wax loo xam ni man du ma ci jaar Julaas ibn Amr mu ne yonent bi dafa defee ni ñu ñooy ay mbaamam yoo xam ni foo wëlbati ko naan andi leen andi leen andi leen rek daal di wax loo xam ni man moom du ma ko nettali benn doomu jiit leen daal di koy dégg ni ko tey wax nga lu rëy su ma ci noppee noppi naa ci lu rëy te su ma la boolee bool na ci lu rëy waaye du ma ko nopp xaw ma boole ak dem boole ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ni woo leen ma ko mu ñëw yonent bi ni ko li kii wax yaa ko wax mu ni ko billahi wax ko ndeysaan te xoolal mbokk yi géej géej ni mu rëyee jël ci gën a màgg ñépp def ko seede te fekk da ngay fen ci jamono jooju yonente bi saa sallam yarewul woon saxaaba yi fen léegi nag bàyyil xel bunt bi may bëgg a wax su ma nee la saxaaba ak saxaaba kullukum udul saxaaba yi ñëpp a maandu fen amuloon seen biir mooy ñi fi nekkul naafiq tax may wax saa boo déggee aw fen wala loolu loolu rek ñu nekkul naafiq la woon ñu ñu nekk ay naafiq la yonente bi geesu xool xale bi nekk xale baa ngi jooy moom ndax li ko métti mooy ponkalu magum jëmm di saaba yi saxut sikkim nan la mën a fenee fen wu tooy xet nii te moo ko wax léegi ndekki jullit ñi seen ñeme yàlla yegg na fii mu talal ay loxo mu ñaan yàlla rek jibril ñëw jibril ñëw ci yonente bi yàlla mun yaxlifuuna billahi ma qaalu wa laqad qaalu kalimata alkufri wa kafaru baada imaani yàlla mu ne ñi ngi giñ naan waxuñu ko waaye waxuma la ñoo ko wax dépassé naa ñoo ko wax waaye lañ wax sax génn na leen ci lislaam fa xale bi doog a xam ne yonente bi daal di xam ne ah xale bi kat li mu wax kon ndekki dëgg la nit yu bari bari bari yu del noonu amoon na ci jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñeekaaleen jim jihaar ñu ne inne bu yotuna awra wa ma hiya bi awra yàlla mu ne in yuridillah firaran daw rek ñu bëgg ñuy joxe nga am kon dañuy wax waaye bu ñu wëlbatikoo ña ngay def lu wuuteeg loo la amoon xam ngeen bu ngeen fàttali ko ci histoire bu Ali ibn Abi Talib bi waxoon naa leen ci guddi gi ndeysaan waxtaan nañ ba déggoo ñoom ñëpp pour benn deretu jullit bu mu tuuru naafiq yi ci biir ñu toog ba deux heures du matin ñu xam ni affaire bi accord bi ñu signante arrangé wu leen ndax ñoom li ñu bëggoon mooy jullit ñi nañ xeex su ko defee ñoom seen mbir gën a xam nga nuñ def gars yi dañu nañ joxante rendez-vous trois heures et demi trois heures et demi ci guddi pire bu jotee rek benn waay ci ñun yow ñu ñu partagé wu naafiq yi ñu ni kenn ku ne du dugg ci mbooloo trois heures et demi bu jotee ci misaal rek na benn waay sànni pett ci mbooloo mi beneen waay sànni pett ci mbooloo mi su ko defee ñoom dañ naan kon ñii war nañu ñeeni ñii war nañu dinañ xeex lii moo indi xeex pett yi bi mu jógee mbooloo mee ni daw lépp ñii war nañu mbooloo mee wax loolu ñu songoo ay junni junni bakkan yu doon sellal tey jaamu yàlla bii way iman dee te ay naafiq ñoo ko sabab kon tuuma gi ñu tuumaaloon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci këram xam nga dara gën a ñàkk xotti xorma dara gën a nekk xotti xorma ñàkk yàlla tuumaal soxna yonent bi sax dikk ne tuu tuumaal nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa set moo tax mu takk ci moom day set nga tuumaal lam gën a bëgg muy Aïcha moo tax mbokk yi ba tey jii la naafiq doon joué mi ngi koy joué rôle bu bon bu yées bi naafiq doon def mi ngi koy def ba tey li jaadu mooy jaamu yàlla yi kenn ku ci nekk nga tiit ci boppam tey muslu ci yàlla ci naafiq wallahi jar na jug ba guddi julli ñaar rakka jooyal yàlla génne rangoñ yu tàngi jër ngir yàlla na la musal ci naafiq inna al munafiqina naafiq yi suñu borom ne fi darkil asfali min an naar fa gën a xóot li wolof yi tuddee xóoñ ci ndax nga xam ni mooy gën a mitti ci toogu gi ndax mooy fii teg taal ba suñu borom ni munaafiq yi ñoom lañ noonu la ñu mel ci sawar billahi aleykum mbokk yi kan ci ñun mooy koo xam ni wóolu na boppam ci ne bokk ci naafiq yi ndax am na kenn ci yéen wala man ku ñu may xalaat naan ah alhamdulilah man mucc naa ci soo ko defee la muy waree mooy sa gëm yàlla des na la war kay mooy nga tiit man nii boo demee naafiq la di corriger sa bopp lan mooy melokaan naafiq lan mooy jikkoy naafiq yooyu nag boo ko laajee borom xam-xam dana la wax nangam ji nangam ji te lépp ci alxuraan lay génne koo xam ni soo waxee fen yéen ci yàlla may neen naafiq ay mandargaam bokk na ca mooy idaa xadasa kadaba bu waxtaanee fen ñaata yoon nga jàpp ne yow doo naafiq te yow boo waxtaanee di nga fen wa ida waada axlaf bu diggee bu waxee dinaa dem du dem dinaa ñëw du ñëw allahuma lu dul nit ci ngant da koo dal te wax naa ni ngant yi sax yàlla yombalal nañu dinaa ñëw mënoo ñëw téléphone yëkkatil wooteel yàlla yombal na te loolu sax ñu njëkk ñu amuñ ko woon wa ida tumina xaana buñ ko wóoloo mu war buñ ko wóoloo mu war nag nekkul ci alal kese lépp loo yaakaar ci àddina nit wóolu la ca wax wallahi bu doon secret sax secret da ngay dégg ku ñu la sëñ bi yow rek laa ko wax ba nga ne ko yow rek laa ko wax rek def nga musiba ndax bu génnee sii wala ko nit ñëpp comme ay tame lay comme ay tame da ngay lay muy ruus loo yaakaar ba seet sa xarit bi nga jàpp ni moom laa gën a wóolu déey ko ko da ngay génn fekk mu nekk lantinoor sotti ko ca mbedd mbokk yi est-ce que loolu ñu ngi koy xalaat bu baax ñaata yoon la nit wax sa këréem nga génn siiwal ko li gën a yées ci doomu aadama mooy ku mënta wattu secret mooy koo xam ne luñ la wax nga seen waxe ban sax dañoo dem ba xamee la bu ñuy waxtaan ñu seen la ngay ñëw ne ah noppi leen de ala xama ngi ñëw ndax yow lantinoor nga da ngay seen lahum xizyun fi dunya loolu tortaange la ci àddina ku dem ba nit ñi dina moytu ndax sa sa sa làmm wu ñaw wala hum fi l axirati adabun muhin alaxira ndigal mu doy leen lay xaar suñu borom wa ida duu bu ñu leen wooxee ñoom naafiq yi ila allahi ci yàlla wa rasuli ak yonenteem li yaxkuma baynahum pour mu àttee leen bu fekkee njaaxum daa am wala loo xam dañ cee war a àtt ñu woole ci leen kaayan dem ci yàlla ak yonente bi ida fariqun minhum am na ci mbooloo ci ñoom ñoo xam ni moo ay góor dañuy lànk duñ nangoo yegg ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam nañ ñooy ñan xam nañ yonente bi kat moo ne way yakun lahumul xaq bu dee wóor na leen ni ñoo am dëgg tey yaxtu ilayhi dañuy jëkk ci yonent muzahiniina gaaw xoolal xoolal kii nim naa fekk bu fekkee dañ laa wooñe la kaay yonent bi àtte day lànk ndax daa xam ni moo defu kaay kaay tey way yakun lahumul xaq su ko wóoree tey li ñuy sàkk ci moom yonent bi àtte leen moo ci am dëgg da ngay gis bala nga naan kañ lañ jënd mu ne acca nañ dem ndax xam na ne bu dee mooy am dëgg moo tax waaye su ko wóoree ni amul dëgg day bañ a jëw ci yonent bi ndax day bañ yonent bi xañ ko dëgg moo tax yonent yàlla bi nee na ñaari jullit yu jàppante ñu woo leen ci àtte leen ci yàlla ak yonenteem ñu bañ na nga xam ne ñooñu duñ ay jullit ñooñu duñ ñu gëm yàlla gis nga de kenn ku ci nekk say arrangement ngay seet mbokk yi billahi alladi la ilaha illa huwa tey xeet bi tey xeet bi boo ko tëriyee woon boo tëriyee woon xeeti Muhammad génne ko dama ni la tey nekk ay naafiq dama ni la dinañ xaw a jege dinañ jege mbaa sax bu ma bañ woon mu baalaxa ma wax ni danañ toll ni wala ñu ëpp ñi nekk muminuun xullas am na ñoo xam ne tamit balaa ñoo wax ci alquran rek dañoo am leen intérêt xaay yi leen arrange moom boo ca waxee ñu jël xadis yi leen arrange boo ca waxee ñu jël li la nga déglu ci média yi benn waay boo xam ni dañ koo xamee xa xaw ma xaw ma xaw ma sàmm ak yelleef doomu aadama xaw ma nu ñu koy waxatee yow koo xam ni débat yi ngay dégg yépp mu cay wax luy nekk ci alxuraan lay wax kooku war ngaa mën a xëy benn bis gis muy wax bay tegtaloo alxuraan xam nga daa xam ne kon la muy tegtaloo arrangé na ko tey boo duggee mën lii ba ci kilifa jiw yi da ngay gis koo xam ne day wax njaaxum gu toll ni Dakar jël ab aaya bi ko ko dëggalee yow bu waxee ba noppi da nga yaakaar ne aaya bi moom yàlla ci lii la ko wàccoon mu ne ay jongamaam yi xe ay jongamaam ñi ngi xeetal te waxu ca dara te alxuraan wax na ci mu ne ay doom yu góor ñu ngi dorogeewul te waxu ca dara te alxuraan wax na ci mu ne am nañu ko topp ñoo xam dañoo gëm ni bu ñuy géemu leen tàmbal àjjana waxu ca dara ak yeneen ak yeneen yuñ mën a wax ak yuñ mën a wax kon mbokk yi suñu borom ni wa in yakun lahumul xaq bu dee ñoo am dëgg yatu ilayhi muz'inin dañuy ñëw nekk ak gaaw suñu borom ni afi qulubihim marad ñoom ndax tawat daa ne ci seen xol alam kay jërul laaj xanaa suñu borom kay ñun la wax nañ ko laaj waaye moom xam na te loolooy li am afi qulubihim marad moo tax alxaafis ibnu kathir li muy tafsi ba yegg ci aay yi dani faw ñaar yi am afi qulubihim marad amir taabu ñaar yi benn am na ci ndax seen xol yi daa feebar amir taabu wala dañoo wedd yàlla faf am wala boog yaxaafuuna dañuy tiit ay yaxiif allahu alayhim yàlla jéng ab àtte ci ñoom wa rasuluhu yonente bi jéng ab àtte ci ñoom bal li am ba def kay mooy ulaayika ñii humul zaalimuuna ñooy tooñkat yi bal li am ulaayika ñii humul zaalimuuna ñooy tooñkat yi ñooy naafiq naafiq yi jeex suñu borom ni innama kaana dina nekk moos qawlal muminina waxu ku gëm yàlla ida duu ila allahi wa rasulih xoolal kii ni wuute kële ki gëm yàlla ida duu buñ ko wooyee ila allahi ci yàlla wa rasulih akub yonenteem li yaxkuma baynahum ngir ñu àtte leen maa am dëgg ak aw ma dëgg dina ma arrangé du ma arrangé dinañ dal sama kaw du dal sama kaw tey la sama sutura yi xaawee abdul xaawee sutura ñun seen yi nekku ci xam nga lu ñuy wax samiana dégg nañu wa ataana te fas yéenee toog allahu akbar gis nga aji gëm yàlla saa buñ ko wooyee ci atte woo téere yàlla bi sami'na wa ata'na fa bil ayni wa nas saxaaba ya yeggoon nañ foo xam ni buñ ne la yonent bi nee na nga teg ci baat boo amul sens sa baat teggeeku yow saxaaba yi tolloon nañ foo xam ni buñ ne la yonent bi nee na nga teg ci baat boo amul sens sa baat teggeeku yow moo tax Abdullah ibn Mas'ud bu mu saan dégg gars yi naan Aboubacar nee na Omar nee na mu ni allahu akbar yéen xanaa da ngeen bëgg ay xeer taw ci asamaan taw ci seen kaw bopp yi maanaam leen yonent bi nee na ngeen naan Aboubacar nee na yéen xanaa da ngeen bëgg a dee su fekkee yonent bi nee na ah kenn waru ko remplacer ak Aboubacar nee na waaw ki jël yonent bi nee na di ko remplacer ak beneen nit nag mbokk yi wallahi am na ay nit yoo xam ne tey subhaana rabbina al aala allahu akbar da ngay di diw bu la génne na ci sëriñ diw rek xamal ni wax na dëgg ça veut dire que sëriñ diw moo ëpp orma ca xolam ci yàlla subhanahu wa taala allahu akbar mbokk yi xoolal tey société bi li ñu moo tax li ma doon nekkee sànq sama tàmbali daal wallahi lii ñëw ci ay musiba ci taw beeg ci leneen ak leneen doo dogg ci ni day ay nit yu tooñ yàllaa ko def ndax am na ñoo xam ne ña nga ci seen biir te jëfuñu tooñ waaye mbokk yi mboolem lu xeet yu njëkk ya daan def ba yàlla di leen alal sunu xeet wi tey ñu ngi koy def loo yaakaar ni alquran nettali na ko mu di caay caay bu yàlla alage aw xeet ñun sunu xeet wi dajale nañ yépp góor jigéen a ngi fi jigéen yuy tey ci seen biir ñu ngi fi jigéen yuy tey xaj mi ngi fi subhanallah loo yaakaar ci mbon loo yaakaar ci mbon ak ku taxaw naan la alquran ci boppam dafa tardé alquran la mën a réglé mooy ay ca jamono yonent sa sallam jamonoy technologie lañ nekk jamonoy avancement lañ nekk jamonoy internet lañ nekk boo fekkee da ngaa bëgg a jëfandikoo alquran doo bokk wallahi nga gis ku mën a dem ba naan yonent sa sallam seen yonent bi daal góor bu bëggoon jigéen la ndax foofu tak takkum jabar rek la fi doon wut damay wax ni am na kàddu yoo xamante ni toog di ko waxaat sax damay yaakaar ñu am ci bàkkaar li xeet yi wax tey li nit ñi wax tey wallahi ab journal fii ci Canada bokkut ak yi ngeen xamoon de benn waay moo xam ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la jël def ko ginaar mu nekk ginaar ay cuujam topp ci ginnaaw muy saxaaba yi fii ci Canada bi am na imam ju mag jazahullahu kulla xayr Cheikh Abu Ishaq al-Hawayli def na ci xutba jumaa ju am solo sax déglu naa xutba boobu maa ngi kasat bi kon mbokk yi tey loo yaakaar ci lu taxoon yàllay faagaagal xeet yi askan waa ngi koy wax wallahi walaw yuaxidu llah annaasa bi dulmihim ma taraka ala dahriha min daaba bu doon yàlla dañuy toppee li ñuy def kenn du ci def waaye xoolal ci gëm yàlla suñ ko wooyee ci yàlla nee na te yonenteem nee na an yaqulu day wax samiana wa ataana dégg nañ te topp sunu borom ula wa ulaayika ñooñu humul muflixuuna ñooñu ñuy texe yàlla yàlla boolem ci ñoom sunu borom ne wa yuti allaha ku topp yàlla wa rasulahu topp ab yonenteem wa yaxsha allaha mu ragal yàlla wa yattaqi te mu koy motte wattandiku yaxsha ak yattaqi ñaari baat la ñuy bokk lu ñuy tekki waaye benn bu nekk am na lu mu ëppale morom yaxsha ak yattaqi benn bu ne ragal yàlla lay tekki waaye bu ne am na lu mu ëppale morom wa yaxsha allaha mooy mu ragal yàlla ci lépp lu muy wax lu muy def lu muy xool lu muy lépp da cay xool yàlla am naa wa yattaqi nag ittiqaa mooy fi'lul ma'mur wa tarkul tarkul mahdur fexe ba liñ lay digal nga di ko def liñ lay tere nga di ko bàyyi loolu mooy taqwallah moo tax ba ko Omar ibn Xattaab di misaal waa ji dañu ko lan mooy ragal yàlla mu ni ko mas ngaa dem ci àll bu am ay dégg mu ni ko waawaaw te fekk solo ay daal mu ne waawaaw mu ne ko noo doon def li ngay dox ni ko damay cap tànk yi léeg-léeg ma teggi ma cakkab cakkab yi léeg-léeg ma teg ko fële di moytandiku looy moytandiku ngir affaire yi jàmm la noonu ngay moytandikoo di wut fooy teggi nag boo bëggee am ragal yàlla noonu ngay def fii tegal tànk bi bu ko teg fii teg ko fee bu ko teg fii teg ko fële loolu mooy ragal yàlla sunu borom ne wa yuti allah ku topp yàlla wa rasulahu topp ab yonenteem wa yaxsha allah mu ragal yàlla wa yattaqi te mu koy wattandiku fu mu toll fa ulaayika ñooñu de humul faaizuuna ñooñu ñuy texe noo ngi ñaan yàlla bi asmaa'il husna wa sifaatihi al ula yàlla yàlla defal ñu tawfiq ku bokk ci kuréel bii yàlla yàlla defal ñu alquran mu nekk rabia qulubina wa nuura sudurina wa jilaa ahzanina wa dihaaba humumina wa gumumina nu ngi ñaan yàlla al firdaws al aala comme ni yéen yàlla wax ne kuy ñaan ajana ñaanal yàlla firdaws ndax moo gën a kawe ci ajana ya allahuma inna nasaluka al firdaws al aala اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين